xam naa ci dara de. parce que xam nga environnementaliste la bul fàtte loolu wax naa la de gis gis nga affaire ressource naturelle. moo wax naa ko keroog même bu ma dëggee aar suñu bokk yenn xale yi kii dama ne leen def leen ndànk eh, gis ngeen affaire gestion ressource naturelle eh, daanaka ça fait vingt ans ma ciy liggéey mais boobu temps amul bii ampleur parce que gestion pour ñun forêt yi ah, ak kii mais comme léegi pétrole ak gaz eh, moo tax. mais kon principe yi koy organiser liggéey na ci lu yàgg mais les kon pétrole bi ñu découvrir ak euh, gaz bi euh, ay ressources naturelles la li am solo moy ñu xamné peuple bi moko mom le peuple sénégalais léegi nak peuple sénégalais bi tam dafa am ñu mu fal ne yéne may yorel réew mi kon gouvernant yi ñom ñoo ko war saytu saytu bu rafet ci turu peuple bi niko alcorane waxe tout le temps man damay wax né verset bonne gouvernance niko qurtubi waxe inna allaha yamurukum Antu Adul Amanati ila ahliha. Dieu vous commande de restituer les dépôts aux ayants droit. ila ahliha. Ahliha Bobu, korte bi nee na euh, peuple bi askan bi ñom ñoy ayants droit yi ñoom ñoo am àq ci ñu saytul len euh, li ñu kon koku c'est le verset de la bonne gouvernance euh, bo demee ci Thierno Souleyman Baal jàngale na bonne gouvernance avant la Révolution française en 1700 et quelque avant la révolution française mu jàngale principe de bonne gouvernance dal ne ku ngeen di fal na tegu ci xam-xam mu tegu ci waso bu jékki-jékkee alalam yokku te gisul len lu mu liggéey ba am ko ni ngeen ko folli loolu moy enrichissement sans cause kon modernité bi kagn la commencé kon fi la commencé avant la révolution française euh, et américaine donc principe yoy mi ngi ci l'islam mi ngi sun diine motax tax bok biñ bokk bi ma wooy ma sawar ñew ne li da ngeen ma ci fekk

Euh, nu mu tuddati nañu euh, fexe ba euh, jaarale fi régler ay compte politique yenn homme politique yi commence di tenir discours directement contre le président genre waratul mën a yore réew mi ndax nangam nangam ma ne bon ça c'est des conclusions politiques yoo xam ni man du ma ko assumer am naa sama point de vue politique ci réew mi ni muy doxee mais ñëwuma aar pour jàllale loolu ak tamit ma commencé gis de plus en plus lépp loo xam ni luy contre pouvoir bi la rek <clears throat> ñenn si ñoom dañ ciy sawar te man loolu indi ma fa woon la preuve amna lo xamni suñ ko doon woté dama ne len wo len parti yépp ma gis ay réticence ci wo yenn parti mané ah, attention man en tant que citoyen non non mak ben parti ak yenen ak yenen kon yoyu motax mané li pour man nekutul une démarche citoyenne légui nak bama démé ba gis né ñi ëpp ci ñom gisé wuñ mbir mi comme man ci la ci la génn légui na am ñen ño xamni yaq nañ ci sama der dañ ko dig dara nangam ak nangam dafa ragal lacrymogène amna ben way bi wax loolu ko ma ne ko yow nañ mantam ñu sét ba xam man tam sumay dugg ci dara duma duma sal bi ni duma bayyi mbubu islam ci buntu bi dugg def luma neex gennat sol mbub bi abadan kon teta aussi nit ñi dañ ma fo won kon domo wo, ñi ma wo ci lan lañ ma xam dooma wo ci loolu ba pare dal na nek and ak ñun tam contradiction la kon euh, yoy ma problème mais je reste je reste islam momako à lutter pour que li bok bokk ci réew mi yëpp du rek du rek pétrole na hein, ak gaz li bok bokk ci réew mi yëpp euh, ñu saytu ko saytu bu rafet mais nag bu tegu ci dëgg ak Euh, jóg fi ma tok, kon lépp lu ma mën a sa der naa ko def y compris ci pétrole bi ak nangam nangam ci mais par contre na lépp tegu ci yoon nañu def bonne gouvernance comme nous mu nekkee ci constitution bi kon man maa ngi pour que ku mën yor Sénégal nga respecter charte réew mi ci affaire bonne gouvernance et particulièrement sur les ressources naturelles peu importe ko xamni ya a jiite réew mi koo xam politique nga defal sa parti politique defal sa campagne demal sa élection lo am nga jël loolu amul problème mais kon man xéxaluma ben parti politique mais je reste dans un combat citoyen la preuve moy que ni du affaire pétrole nga may dégg voilà mais lepp lo xamni gis na ni yittal na Sénégal da ma ci dégg les gens disent mais imam tu tires sur tout qu'est-ce et cetera man len peut-être que je tire sur tout c'est parce que li dox ci réew mi tam dafa bëriwul lan beaucoup de choses ne marchent pas lolo tax tamit xeyna may wax ci lu ne mais bëgg naa lu may wax tek ko ci mandute tay suma ci juumee tam ba xam ne na ma corriger ko. d'accord.